de quoi est la le tey Grand Yoff la ñuy desaat ba tey ak Yaay Kumba Ndiaye euh, Yaay Kumba ginnaaw ba ñu la nuyoo ziar la tey fan nga ñu yóbbu ci euh, commune bu Grand Yoff ñu ngi lay fay di nuyu ñi nga bokkal plateau di nuyu aussi ñi ñuy seetaan yéen a ngi seen rubrique de quoi est-il le nom tey ñu ngi fii euh, commune bu Grand Yoff euh, quartier Shelter Shelter nag mi ngi nekk ci biir HLM Grand Yoff dañoo nar a waxtaan nag askan bi nga xamante ni si ñoo fi dëkk laaj leen lan lan xam si turu Shelter lu muy firi suñu paree nag dañuy dem seeti suñu personne ressource moom mooy délégué de quartier bi moom lañ nar a waxtaanal mu jox ñu ay information yu leer ci tur bi fan la jóge topp leen ma asalaamaaleykum tata nuyu la. Euh, tur bi ñu bàyyi la nga présenté faatu Fatou Maria. Maria dañoo bëggoon xam turu shelter bi fan la jóge wala lu muy firi. lu muy firi moom daal xaw ma ko de. Ah. yow yàgg nga ci cité bi. yàgguma ah, fi noonu. waaw ah d'accord merci beaucoup soxna si. ñu continuer rek suñu doxantu asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. salaam. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw maa ngi tudd Babacar Tamba. dëkk fii HLM Grand Cité Shelter. yàgg nga. Euh, waa yàgg naa fi trop. def naa fi six ans. kon yow war nga xam shelter lu muy firi. ah shelter tur bi yéeme na trop bu ma ko waxee mbaa chef de quartier du ma door déedéet loo xalaat. li ma xalaat yéeme na te ñoo bàyyi hors antenne ma wax la la ko hors antenne. moo gën a moo gën a yéeme parce que damay bañ wax ko fii gars yi. yow daa mel na xamoo. non xam naa ko pour de ah, parce que six ans wa léegi xam nga mooy loolu. waaw xam nga shelter moom tur bi fi mu jugee moo sori quoi je comprends parce que li muy firndeel am na lu bëri yoo xam te ne mënuñu taxaw tey jii di ko firndeel parce que mag yi ñoo tax parce que ñi fi jotoon nekk parce que fii yëpp àll la woon jamono jooj ba léegi ba ñu ñëw ba nii nii suñu maam ba gars yi ñëw fi nii commencé fi dëkk si tuddee ko shelter am tur bi am lu muy firndeel parce que dafa amoon jeunes yoo xamante ne ñoo fi nekkoon def lu doy waar def loo xamante ne tey jii nii mën nañ firndeel ne ñun tànk yooyu lañ jël yaa ngi comprendre tànk yooyu lañ jël pour. yeggale liggéey boobu ñoom ñu fi def comprendre nga mu amoon benn jeune boo xam moom fii la nekkoon tuddoon Salif comprendre nga léegi ñu jël tur bi nag ne kaay ñu defee ko shelter ñun booy jeunes yi ñoo toog fii nii tuddee ko shelter ci comprendre looloo tax ñu ne am na loo xamante ne bëgguñu di ci yegg ci biir waaw dañuy bëgg maanaam wax ci tuuti mais duñu bëgg yegg ci biir parce que dañu koy tere. ok merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal yéen a ko gisandoo am na ñu jot a waxtaanal ñoom nag euh, ne ñenn ñi nee nañ xamuñu tur bi fu mu jógee kii moom am na explication bu ñu jot a jox mais nag pour ñu am ci ay leeral dañuy dem seeti suñu personne ressource muy délégué de quartier cité shelter moom lañ nar a waxtaanal moom moo ñu nar a jox ay information si tur bi lu muy firi ak euh, fan la jógee si kañ lañ sant sant cité bi jaafara topp ma comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi ak suñu personne ressource moom nag mooy délégué de quartier shelter moom lañ nar a waxtaanal mu jox ñu ay information ci tur bi fan la war a jóge papa ñu ngi lay nuyu. Oh, maa ngi leen di fay. ñu bàyyi la nga présenté. waaw oh, bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani wala quwata illa billah aliyul azim man nag man maa ngi tudd Mouhamadou Makhtar Niang ñu may gën a woowee ci monsieur Niang wala imam Niang ndax dama yore quartier bi mais aussi yore tim ci jàkka ji yàlla moo ko dogal euh, léegi nag dañoo bëggoon xam rek turu shelter fan la jóge waaw euh, euh, shelter bu fekkee ni dégg ñu ngi koy xool ci anglais li ma wax ni moom mooy. abri kooku c'est la traduction en anglais ko mais bu fekkee dañ ko disséquer le le mot shelter moom mooy la société d'habitation et de logement territorial en Afrique seulement shelter Afrique moom Afrique bi ñu ngi ko bindee A F R I C waaw. kon société nigériane boobu lii lay signifier. Oui, c'est la société qui siège au Nigeria et qui, pour la première fois, euh, veut contribuer à l'installation de logements sociaux, euh, de logements so sociaux, mais en Afrique, euh, de, en Afrique francophone. Quoi. ñoo ko déggandoo explication yi sunu papa ji joxe shelter moo bi fi mu jógee société d'habitation et de logement territorial en Afrique loolu lay signifier donc euh, di ko jaajëfal bu baax moom suñu personne ressource bi di jaajëfal aussi askan bi nga xamante ni si ñoom lañ fekk fii di quartier shelter di jaajëfal si jaafara bi ma àndal ci caméra bi di leen jox dig daje incha allah ba beneen ci beneen gox wala ci beneen bërëb merci merci beaucoup ma Ndiaye Diafara euh, Ba ak euh, Khadim Ndiaye ci euh, dëkkuwaaytil la noo bi Cheikh Tidiane niñ ko doon jortee rek moo bi ci anglais la mooy explication bu njëkk bi muy shelter maanaam abri ah bon je <laughs> ak beneen ak beneen explication aussi bu paa bi joxee muy benn société boo xam ne xañ na mën nañoo jàpp yi tamit ni turu quartier bi foofu la dëkk man en tout cas c' est la première fois may dégg turu. turu ah, turu quartier bi. Ah, Grand Yoff la nekk. non je pense que c' est la première fois. Mm. ñoo si yem. ñoo ci yem de c' ça li ñu déglu. Mm. Euh, on a appris comme tous les téléspectateurs, on a découvert comme tous les téléspectateurs. encore une fois merci à la rubrique. Mmh, c'est ça c'est l'intérêt quand même de quoi est-il le nom ndax yenn quartier yoo xam ne ñu bëri xamuñu ko rawatina origine nom bi merci beaucoup Yaay Kumba rendez ci yeneen jotaay ngir yeneen de quoi est-il le nom ñu jàll tout de suite euh, ci document bi.